juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futur Média xibaaru ngoon gi li ci gën a fës di euh, bëccëg gu tàng tey ji ca Louga ay jàppante yu metti doxoon diggante takk der yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di dawalkatu euh, Jakarta yi yooye ndaw nag li leen metti moo di contrôle yu bëri soxal euh, port de casque ñu ne nag mbir mi dafa ëpp ba tax na tey ji ci suba ñu wàcc ci tali bi jàppante nag ak policier yi police nag amoon jafe lool daanaka bëriwuñu foofule euh, ca diwaanu euh, luga waaye ci mujjanteel ga euh, mujj nañoo maîtriser situation bi accident yu bëri ñu nemmeeku ci kaw tali bi transporteur ya nekk ca gare des Beaux Maraîchers ñoom nguur gi lañ ci joxoñ baram tuuma ne manquement yu bëri ci ñoom la tey ji nag ñu ngi doon janoo ko taskatu xibaar yi di ngeen ci dégg Salif Sow ca Tivaouane Peulh moom ñu ngay wéy di daaneel kër yi ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci lor loru jàpp ne taxaw maanaam indemniser leen euh, ñaawlu nañu itam li nga xamante ne noonee la nguur gi euh, doxalee ak tekk-tekkaaram ci li nga xamante ne euh, xew na foofee ca Tiwaawoon pël wàllu caada journée mondiale ju livre ñu koy màggal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril gi seetlu gi nag moo di ne léegi daanaka ndaw ñi liir tuñu wala boog ñu néew ci ñoom lañuy fekk ci bibliothèque yi ñuy liir li ni mel nag jàpp nañ ne dañu ko war xoolaat am nañu yaakaar ci fonds yi ñu jagleel loolee bu noppee daal euh, gone yi dinañu door di euh, liiraat wàllu caada ba tey Sorano soppi statut léegi kay euh, établissement la à caractère industriel et commercial PCA ba moom mi ngi koy rafetlu waaye Alioune Badara Bey li mu xamle moo di ne bu statut bu bees bi dafa war a tax rek ba acteur culturel ci nekk gën a wone seen bopp gëstu bés bi ñu ngi ko jagleel école nationale des arts ci njeexitalu xibaar yi lay doon mbokk yi ponk yaa ngoog nes ñu yaatal ko dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futur Média di leen wax bisimila ci xibaaru ngoon gi doore kook lu soxol jàppante yu metti yu amoon euh, tey jii ca Louga diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo di dawalkatu jakarta yi ak euh, takk der yi dawalkatu jakarta yi nag li leen metti moo di contrôle yu bëri yu soxol euh, port de casque ñu ne dafa mujj ëpp ba tax na tey jii ñu wàcc ci tali yi police nag moom amoon na ay jafe-jafe ngir maîtriser leen ndax ndaw ñi takku woon nañu lool waaye ca mujjantal ga daal mujj nañoo maîtriser situation bi dañ ci ànd ak Thierno Fall. bëccëgu tey bi tàngoon na lool ci diggante dawalkatu jakarta yi ak takk der yi fii ci diwaanu Louga. xale yi nag seen mer mi mi ngi tukkee ci ginnaaw bu nga xamee ni takk der yi xëy nañu di contrôler ñi nga xamee ni yoruñu casque. police ak nag mi ngi def liggéey mais ni ñuy defee seen liggéey tamit dafa metti parce que mënoo jàpp nit boo ko jàppee tey ne ko kas mu indil la kas bu subaa nga jàpp ko ne ko plaque mu indil la plaque nga bëgg koo tegaat beneen beneen métit boo xam ne naka sudul noonu la bi ñu demee ba nga xam ne war nañ loolu ba ku ne am kas ak plaque leneen li nga xam ne moom lañ ñu sasaat mooy beneen kas pour client bi looloo tax ba ñoom ñu wàcc ci mbedd mi taal ay pneu jàmmaarloog ñi nga xamee ni si ñoo di takk der yi ngir nag fésal seen naqar dawalkatu Dakar yi di xam lañ ñoom takk der yi liñ leen di jàpp dafa bëri ba tax tey ji mënatuñoo am dara. Dakar jakarta bu dul sama suñu waa benn liggéey moo fi am mooy dawal jakarta li ñuy ñaan daal mooy autorité yi mooy ñu protéger jakarta maan yi dimbali leen mais bu fekkee ne mënu ñoo ñëw protéger ñu jox ñu beneen liggéey bu dul jakarta seen jafe-jafe yooyu nag ñii di seen jiit yi nangu nañ ko xam nañ ko waaye li nga xamee ni si naqarlu nañ ko mooy ni nga xamee ni rek xale yi xëy nañu doxale ko tey metti nañu ñu ñëpp parce que ñun ñu jiite affaire yi bëgguñu woon mu deme nii mais nag tàggoowuñu parce que dañu jaar suñu gannaaw def leneen li nga xam ne moom lañ def da ñaan di leen di leen di leen ko wax mooy ñu dal dox ñax su kenn bañu ko mais dafa am fooy jaar xeex bi yàggoon na lool te metti ndax limub takk der yi woon na lool ci kanamu xale yi nga xamee ni si macha allah lim bi takk woon nañu waaye teewul commissaire Wali Camara ak ay ñoñam jàmmaarloo nañu ak ñoom fexe ba tasaare leen ñuy jàpp ni nag am na juróomi manifestant yu nga xamee ni teg nañ leen loxo ak yenn yàqu-yàqu yu nga xamee ni si juddoon koy jaajëfal moom Thierno Fall mi ñu teewal ca Louga wax ci accident yu bëri ci kaw tali bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di chauffeur wala dawalkat yi nekk ca gare des Beaux-Maraîchers ñoom nguur gi lañ ci joxoñ tu tuuma ne manquement yu bëri ci ñoom la ba tax na ñu ngi sàkku daal ñu xoolaat euh, mbir mi tey ji nag ñu ngi doon janook taskatu xibaar yi kenn ci ñoom di Alassane Ndoye yëkkati na ceey kàddu dénk ko Salif Sow Asmalik Diop dama ni tali yi amul éclairage amul tali yi amul signalisation tali yi xat na te loolu lépp dafay causé accident. bi ci des mooy chauffeur yi ak ak chauffeur yi li leen gendarme yi woon ak alkaati loolu dama ne boo ko boo ko defoon mbaam mu daaneel la doo romb ot benn montage ba ak ci ndakaaru booy ñëw doo doon nit bi ci des nga dugg gaaru jeer bii nag mu gën indi ay jafe-jafe gaaru jeer bi dañu ko defar mi sept milliards lañ ci def am ay condition yu ñu waxoon ni noonu la gaaru jeer bi doxe ñoom ñoo waxoon ak protocole bi ma signante ak ñoom ni benn oto boo xam ne interurbain ngay def boo ñëwee buntu Pikine doo ko dépassé état ko kon kay moom moo wax lu mu deful ñun nag comme loolu moo ko war a def te defu ko ñun ñun dinañ ko defal suñu bopp. ci naka mooy génn oto yi dem fa nga xam ni fa la ñëpp ku fa dem liggéey mooy dem si tali ba jël oto yi si kaw tali. loolu moom dinañ ko jàpp parce que dañu ni mbaam du gis mbaam boo ko waxoon fii balaa suba ñu ni nee nañu nangam ñu ñu dénk gaar bi dama ni jafe-jafe bu chauffeur bi am ci biir gaar bi ñi ñu dénk gaar bi parce que ñi ñu dénk gaar bi aaruñu ñu ne si biir gaar bi xaalis la ñuy ca banlieue bu ndakaaru la ñuy des dem ca Tivaouane Peulh foofe nag ñi ngi wéy di daaneel kër yi kër yu bëri sax la ñu fa daaneel ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru nag ñoom ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax léegi kay li ñu bëgg moo di nguur gi daal di leen indemniser euh, ñoom nag yëkkati nañ ci ay kàddu dénk ko Ousseynou Thiam Biradiane ku fi tegoon sa géttu xar boo fi amee soxla war nga mën a aviser borom gétt bi mais kenn aviser wuñu lu dul kën dañu jekki-jekki ñun suñu bopp ñu fi nekkoon ñoo woote ñu ñëw leen ñu ngi toj seen kër yi bi ñu ñëwee même les gendarmes yi fi nekk buñ leen laajee kenn waxuñu ci lu leer lu dul kën yi dëgg ndogal la bu jóge ci kaw ñu toj suñu kër toroxal ñu ay centaine de million nit ñi def ko fii investir ko fii bu fekkonte ni tey dañ ni fii tali moo fiy jaar d'accord na fi tali jaar parce que tali bi développement réew mi la ñun ñëpp ànd nañ ci mais ñi fi jël seen alal def ko fi nañ leen dédommagé parce que fii képp ku fi am kër jël nga vingt cinq mille jox maire bi mu ñëw viser sa terrain nga jëlaat vingt cinq mille jox ko ko muy cinquante mille mu ñëw mu ñëw génne la plan bi ba pare ñu élevé tey waxtaanee nañu euh, marché central bi nga xamante ne euh, yeesalaat nañ ko ba noppi ñu war ko nag jébbal askan wi euh, la cérémonie de lancement bi ñu naroon ko amal samedi bi nag waaye daal di nañ ko ajandi ba ay bés yi ñu dëgmal ñoom nag wax nañu ci doxalinu nguur gi ak ni nga xamante ne noonu la yenn ci ay commerçant doxalee ginnaaw bi ñu bëggee rek indi ay coppite ci boobe marché central bu. bu euh, Rufisque dañ ci ànd ak Ousseynou Thiam Bira ba tey. seen janoog taskatu xabaar yi ñii di promoteur ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo jiite lii di ville bu Rufisque ak lii di commune bu Rufisque ci lu waral ñu dàq nag ndorteelu lii di projet carré d'or muy yeesalaat lii di marché centrale bu Tëngéej. report bi li ko waral mooy xam nañ ne Sénégal euh, am na lu fi xew ci la jaale vraiment njiitu réew mi euh, di jaale aussi ki nga xam ne. mooy xalifu général bu Médina Gounass li nga xam ne moo am ci dàkk ba bi moo amee aussitôt ñun dañu tase ñu waxtaan ñu ne daal lu mel nii boo amee Sénégal euh, duñu du jaadu ñuy def ñuy lancer communication institutionnelle suñu projet. ci seen i kàddu ñoom sax ñu ne projet boobu nga xam ne nii bëgg nañ koo dugal ci lii di plan Sénégal émergent lii di engagement nguur gi nag doon na lu wér. bi ñu tasee le ministre du renouveau urbain wax nañu ne vraiment d'accord na ci projet bu mel nii te ànd na ci. te dina fexe euh, jël disposition yépp pour accompagner projet bi mettre en place benn comité technique boo xam ne bii mooy saytu lépp loo xam ne lii ay contraintes la pour que ñu lever ko ñun ci collectivité locale yi dañu wax ne projet bi dañ suñ contribution la ci plan Sénégal émergent muy ps e. lu jëm ci yenn commerçant yi nga xam ne nii daanaka dëppoowuñu ak projet bi ba léegi ñoom nag xamle ne nañu loolu terewul nag ñu wëyal boobu les projets. validé nañu ak ñun projet bi pare pour ànd ci ak ville de Rufisque pare pour ànd ci ak la commune de Rufisque Est pare pour ànd ci ak Imosène pour mën ko réaliser ci diir bu nga xam ne euh, du départ du àgg ci ñetti at. mu doon nag projet boo xam ne bi koppar yañ ca nar a def toll na ci ñeent fukki milliards ak ñaar àpp liggéey bi nag ñu jàpp ko ci ñetti at ci kàddu yi ñooñu nga xam ne nii ñoom ñoo door bi le projet. ay coppite ci convention agricole bi loolee la Sidiya Ndiaye bëgg yooyu le kàddu nag mu ngi ko yëkkati ci bët gànnaaru réew mi boobu le convention jàpp na ni yàgg na lool ndax ëpp na ah, ñeent fukki at leneen itam loo xamante ni àdduna ci di milliards yi nga xamante ni nguur gi investir na ko foofee ca vallée du fleuve ah, mu ne nag nguur gi da ko fa war a xoolaat ndax askan fa dëkke ñoom gisuñu seen bopp ci mbir moomule leneen itam lu mu wax ah, moo di lu soxal élection de représentativité syndicale yi dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. secrétaire général bu FGTS Sidiya Ndiaye amal nemmeeku ci diwaanu Ndar dem na ca GDS foofu nag daje ñi nga xamante ni ñoo fay liggéeyee moom nag nee na liggéeykat yi jamono jii dañu sonn te ñenn ci ay syndicalistes yi nga xamante ni ñoo fa ñëwoon amul lenn loo xamante ni indil na leen ko ci lu bees moom sax dem na ba leen di ŋàññ. code bi kii bi ma yoree nii muy secteur agricole 53 lañ ko signé wàllu Jojo Ndiaye ana ko fi am wàllu Jojo Ndiaye. ana ko fi am Mamadou Dia. ñoom ana ñu ñoom central syndical yooyu ñu ne ñoom am nañu 80 organisations. ma ne ay naxee mbaay la ñëw fii université organiser séminaire di jox travailleurs yi mille francs ma ne dafa ruslu ñoom nag dañoo tiit bëgg a ñëw jaar seen kaw jël seen suffrage dem bu ngeen leen fale fi léegi juróom at du ngeen gis kenn. Sidya Ndiaye dem itam ca Jawaar foofee fekk fa baykat yi ñoom baykat yi yëkkati ay kàddu ni jamono jile suuf si nga xamante ni moom la ñu war di bayee mënatuñ ko jot ndaxte directeurs généraux yi ñoo ci teg seen loxo. am na ay directeurs yoo xam ne duñ leen jox ay délibération yoo xam ne commune de Diama moo ko jox. commune de Diam moo la ko jox ay 20 hectares nous sommes nous nous détenons des preuves te am nañu kayit yi te kayit yaa ngi ñun li ñu si soxla mooy lan na nañu jox suuf si ndaw yi ñu dem liggéey liggéeyi. directeur général bu FGTS ñaan na sax ñu daal di auditer ñi di waa PRACAS ak waa SAED. bu ñu bëggee autosuffisance bu ñuy wax ñu bay slogan yi ñëw ci terrain bi parce que li ñu fi day li ñu fi gis tey d' abord piste de production amu fi maanaam boo fi ñëw amul tali mais na ñu wax ne PRACAS ak SAED ñu ngi ay naxee lañ dëkk. nañu audité ñooñu nañ leen audité société boo xam ne depuis vingt ans trente ans yaa ngi fi développé fi dara lu dul ay slogan di wéyal lu jëm ci wàllu bi ci bët gànnaaru réew mi fii nag yëkkati na ay kàddu xamle ni lu jëm ci wàllu centrale syndicale bi mu war a jiite ci élection de représentativité yi am nañ ci yaakaar moom sax ma ngay ñaan militant yi ñu gën a jàpp ci wàllu liggéey bi ci wàllu politique la ñuy yegg si Abdoulaye Wade nag bëgg na euh, ki nga xamante ne moom moo di Serigne Abdou Samad Mbacke Matilé di doom ci xalif général des Mourides doon tête de liste kujje gi euh, fële ca Mbacke moomee nag kooke nag di Serigne Abdou Samad Mbacke Matilé euh, waxagul ndax nangu naam déet lu ci mën ci am analyste politique bi di Momar Seyni Ndiaye moom xam na la ni lu ni mel war ñu bett ci Abdoulaye Wade ndax ay stratégie politique lu mu am la leneen itam lu mu ci teg moo di ne peuple bu Sénégal moom léegi gi nañu xam nañu bu baax a baax ni ñuy tànnee seen i njiit dañ ci ànd ak Alassane Ba. ba léegi nag ci xibaar waxagut waaw wala déet ci lu jëm ci bëgg giñ ko bëgg tabb tête de liste coalition opposition bi ca Mbàkke jiite réew ba woon nag taxaw ngir fexe ba kujje politique bi am ndam ci législative yi ñu dëkkmal. dañ ciy maandu ndax ba léegi sëriñ bi euh, waxagul ndax moom lii ko Ablaye Wade wax nangu na ko walla nangu ko. kon nag dañuy seet rek bu ñuy gëstu dañuy gëstu ci mébétu ab Abdoulaye Wade ndax moo ñuy tax ñu mën a xam euh, fan la bëgg a jëm Abdoulaye Wade nag ah Sénégal yi xam nañ ko ndax euh, lii nga xam ne moom bëgg na ko def jotoon na ko fi jéem ci euh, suñu sëriñ bu tedd bi yàlla na ko yàlla yërëm sëñ yu Mbacke ba def ko ci liste yi génnewaat ko ci liste yi te fekk na sax boobu liste yi joxe nañ ko ba pare boobu beddi na yoon waaye lii mu bëgg a defaat nag wax dëgg neex yàlla du leer loo xam ne lii nit ñi mën nañ ko mën a nangu. ci xalaatu analyste politique bi lépp nag mu ngi tënku ci askan wi war a woote. senegal yi toll nañ foo xam ne fii a ah, am nañu fayda ju toll nii boo leen joxee ndigal wala xeetu tegtal boo mën a indi pour yóbbu leen ci affaire parti politique ñoom am nañ fayda bu toll nii xool. lan mooy seen war ak seen warugar diggante gi sëriñ bi lan mooy seen warugar ak diggante gi parti politique bi ba fi nga xam ne ñoom loolu la ñu yaakaar ne bu ñu ko defee dina mën a soppi seen doxalin ñu def loolu. njiit boobu woon nag di président Abdoulaye Wade xam nañ ko bu baax ci xarañteepam ci wàllu politique analyste politique bi waxee ni ni mel mu jàpp ni ku jëb politique bi ci boppam daa am lu leen manqué. xëy na pexe yaa ngi fi xalaat baa ngi fi waaye ay cëram. ak ci wàllam ci wàllu yaramam ak ci wàllu même dayoom ba waratu ko may muy dugg ci biir politique di wut lu mu ci suula ko sulli wala lu muy manipuler wala lu muy jaxase ko jaxase waat wala muy wax dafa waroon toog rek opposition bi aussi am fayda bu toll nii xam ni ñoom ay mag lañu léegi li Abdou mbay wax mënees na ko dégg ku nekk demal sa bopp. parti bu ne demal boppam ngir mën a xam li muy peese. jaajëfal ko moom Alassane Ba wax ci juróom-ñetteelu édition euh, semaine bu ñu jagleel secrétaire yi euh, màggal nañ ko nag euh, fii ci Sénégal kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb assistante de direction yi amal ab séminaire bu am solo waxtaanee seeni condition de vie de travail bëgg xamle nag ni bëgg nañu ay coppite ci mbir moomule leneen loo xamante ne seen présidente bi xamle na ko moo direk rek li nga xamante ne am na solo gi nga xamante ne am nañ ko ci entreprise yi fii ci Sénégal ba tax na jàpp nañ war nañ leen a gën a jox euh, gëdd tey jii ci suba nag séminaire bi amal nañ ko fii ci Ndakaaru ci teewaayu suñu ay natango di Cheikh Tidiane jonn Diafara Ba ñoom ñëpp ñu ngi daal di bokk ci mbootaay bi nga xam ne moom moo ëmb ñii di secrétaire yi ak assistant de direction yi tey nag ñoom ñu daal di génn lii di bureau yi ngir mën a waxtaanee lépp lu jëm ci seen i conditions de vie et de travail. célébration bi dañ koy defee par benn journée normalement c'était sur toute une semaine mais comme ñun tam dañu nekk ci ay postes yoo xam ne mënuñu bàyyi bàyyi mënuñu ko bàyyi toute une semaine dañu jël benn journée rek parce que ñu nekk ci région yi ñëpp dañuy ñëw jël benn journée def benn formation. ci benn thème boo xam ne dinañu yokk ci suñu liggéey looloo journée tey bi waaw loolu moo tax ñu jël thème bi tey xam naa ne bu ñu ko développé ba mu yaatu dinañ ci mën a wax lu sori. madame Sock moom ak ay ñoñam daal di profité ci semaine bi nga xam ne moom lañ dagleen ñii di secrétaire ak assistante yi ñoom daal li ñuy sàkku mooy plus de considération dañu seetlu ne dañu seetlu ne rek salaire secrétaire yi taxuñu ko baax. booy xool ci organigramme en général salaire du secrétaire yi ñu xaw a ndaw mais du combat moo xam ne dañ ko war a porter kooku syndicaliste yi ñoo ko war a def. suñu sañoon suñu sañoon waa dinañ ko wax nag patron yi ñu koy dégg xëy na ndax di ci jéem a góor di ñu defal dara. ndax am na différence diggante secrétaire ak assistante de direction. assistante euh, mooy collaboratrice directe directeur wala manager comme on peut kooku du du affaire métier secrétariat bi rek lay def day assister directeur bi comme ni bi di wuyoo dafa koy jàppale day participer ci ay voyage am participer mooy dafay élaborer calendrier de voyage am préparer voyage am préparer ay réunion ay agenda donc yooyu secrétaire simple du ko def assistante moo koy def. ci semaine bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel ñii di secrétaire ak assistante de direction yi ANAS mi nga xam ne moom moo daal di ëmb fii nii ci réew mi ne moom ab journée de réflexion la leen di jagleel ngir daal ñu mën a wax lépp lu jëm ci seen métier mi. ci wàllu caada la ñu yegg si wax ci bés bu ñu jagleel livre ci àdduna wërngal këpp dinañ ko màggal nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril bi di dimanche bi ñu dëgmal waaye nag am na yu reportage yu ñu ciy jot def xool rek sénégalais yi ndax ñu ngi liir am déet seetlu gi nag moo di ne léegi ñuy liir ñu néew lañu bibliothèque itam ñi fay dem daanaka bëriwuñu euh, noonu loole nag direction bu livre daal dina ci xamle ne ak fond bi nga xamante ne jagleel nañ ko édition am nañu yaakaar ne loole coppite dina ci am lu yàggul dara dañ ci ànd ak ay satu pay Yunus Diatta bu waxee livre nag wax bibliothèque boo koy jenc mu mel ne nag bërëb yooyu nit ñi duggatuñu fa noonu di lire lan moo ko waral ay manque d'infrastructure bokk na ci problème yi nga xamante ne taxaw na. kàggu yi nga xam ne ci la ñuy fekk téere yooyu dañu wàññeeku dañu xaw a euh, nasax lu bare bare bari fi mu nekk nii ci réew mi euh, gisatuñ leen lu bari ci daara yu ndaw yi ñuy jàngalee euh, gisatuñ leen lu bari aussi ci daara yu diggu dóomu yi fi nga xam ne fii tane na fa rek daal mooy xëy na yu kawe yi euh, nekk nañu ci jamono boo xam ne bii itam euh, li nga xam ne mooy woy xarala yu bees yi nga xam ne ci la ñuy jaar pour euh, sàkku xam-xam ñëw nañu concurrence bu ma ko mënee wax livre ci boppam. mu mel ne nag bibliothèque li ko tax a jóg dafa soppeeku surtout nag fii ci Sénégal bi nga xamante ne neneen lañ koy jëfandikoo. kër goo dugg ci biir réew mi salon boo dugg jomb danga fa fekk li ñu tuddee bibliothèque mais bu ñu naxantewul bibliothèque yooyu lañ fay def te suñu mbokk jigéen yi di ko fa di ko fay faral di def néew nu moom ay téere suñu bëggee euh, xale yi gën a yitteewul livre day baax ñu ñu tuubal bibliothèque yooyu euh, defal yi nga xam ne mën naa jëriñ doomu aadama yi te dina tax xale yi euh, mën a itteewul livre ak ak lecture niki noonu responsabilité bi aussi état kenn mënu ko ci génne. ay fonds yu takku. ñu joxe ko nag lu toll ci huit mille livres ñu distribuer ko lenn rek nag lañ ci jublu joxaat nit ñi caf ko lecture. ñu jàkkleel ñu téeméer ak euh, juróom benn fukk. ci seeni xaalis euro muy lu am solo loo xam ne loolu yëpp nag dañ ko jàkkaleen livre yi ak lecture bi mais aussi bërëb yooyu nga xam ni ñu koy wax ay bibliothèque wala centre de lecture politique bu am solo. boo jëlee livre nag ibbi ko di ko dafa mel ne da ngay dugg ci beneen monde monde boo xamante ne ay gént évasion sax mën na nekk. théâtre national Daniel Sorano soppi statut juróom fukki at ginnaaw bi ñu ko taxawalee léegi nag établissement à caractère industriel et commercial boobule dogal nag PCA ba lu na ko bu baax a baax xamle ne euh, dinañ ci bàyyi euh, xel gi nga xamante ne moom moo di Alioune Badara Bey jàpp ne nag ne ak statut bu bees bi les acteurs culturels yi nekk ci boobule institution dañoo war a gën a wone seen bopp def ay résultats yu mucc ayib loolee dinañ ci ànd ak Faty Dieng xibaar yi ci nasaraan lay doon gëstu bés ñu ngi ko jagleel kuréel ENA école nationale des arts école boo xamante ne euh, day tàggat nit ñi ci lu jëm ci wàllu art vivant art visuel ak médiation euh, culturelle institution la boo xamante ne am na lu toll ci juróom-ñeenti filière ñu daal di koy répartir ci ñetti département ki ñuy gën a xamleek boobu les structures di école nationale des arts di Ibou Diouf école nationale des arts bismillah aksil boo yegsee nii lañ lay teeroo loolee di firndeel ne ci béréb bi dañ ciy tàggat ñoo xamante ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu cosaan ak aada fii ci réew mi foofee ñu duppee école nationale des arts. dafa dafa regroupe ay daara yu nga xamante ni dañ doon yëngu ci wàllum aada cosaan avant waaw muy école nationale des des beaux arts bi fi newoon avant muy école nationale supérieure d' éducation artistique. muy conservatoire national de musique de danse et d'art dramatique. école bii di fësal am ci lépp luy dooleel cosaan ak caada fii ci réew mi. caada ak cosaan am na solo ci développement réew ndaxte euh, richesse bi nga xam ne moom la ñu war a njëkk gis ci réew ci nit la war a nekk. boo yegsee ci département bi ñu jagleel art plastique ñuy tàggat ndaw yi fi nekk. ci lépp lu aju ci technique d'expression. département bi am na ñetti pàcc lañ ko diviser. am na département ñu wax les artistes graphistes am euh, département environnement mooy ñu def aménagement paysager maquettiste et autres am na également le département euh, d'expression. ci école nationale des arts xarala yu yees yi lu ñu bàyyi xel la ba tax na ak seen salle multimédia bi ENA di waajal ndongo yi waaj a génn. ñoom euh, lépp li nga xam ni daf leen manqué woon ci wàll wi moom lañ leen bëgg a mottali seen formation moo waral. ñoom bu ñu paree ci ci ci xarale yi ñu leen defal fii dinañ mën a nekk li ñuy wax euh, ay citoyen universel école nationale des arts di nga fi fekk lépp lu aju ci wàllu modelage ak itam psychopédagogie. Euh, yéen a ngi fii ci département euh, buy former professeur yi nga xam ne ñooy jàngale musique ak dessin ci collège ak lycée yi en même temps aussi fii la ñuy former cadre ministère de la culture c'est-à-dire les animateurs culturels yi. Euh, donc euh, lu ñuy utiliser mooy ban comme ni ñu ko xamee ban dafa di matière boo xam ni neex na liggéeyee parce que day permettre euh, di génne ay formes. man dama leen di jàngal lu jëm ci psychopédagogie mooy lépp lu jëm ci technique jàngalekat nu ñuy jàngale lu ñu war a comporter ci classe yi. école nationale des arts. njàng mi dañ koy boole ak li nga xamante ne mooy pratique ngir xale yi bu ñu génnee rek mën a wéyal seen liggéey ni mu waree. musique moom kenn demul mu des. instruments yi ñu utiliser fii d'habitude c'est piano la ñuy la ñuy commencer parce que moom mu ne instrument principal même soo nekkee guitare il faut que tu commences par le piano moom la ñuy def piano guitare batterie am na aussi instrument traditionnel. yu Youssou Ndour borom TFM yàlla yàlla gën a yokk yow say fem école nationale des arts di wéyal taxawaayam. ci wàllu suqali li nga xamante ne mooy cosaan ak caada fii ci réew mi laataa ñuy indi réforme bi ak itam institut de métiers des arts bu ñuy yégle ne dinañ ko taxawal fële ci jam Diamniadio jaajëfal ko moom Ibou Diouf ak Younus Diatta mi ñu àndaloon yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru euh, ngoon gi fileeg simili yu néew euh, Léa Sukeyna Ndiaye dina fi teew xibaar yi euh, ci français lay doon ñu leen di ñaanal guddi jàmm